fii fii ki fi gën a mag boo koy xool ci trente cinq ans soo ko yam wala boog gars yi li ñu wax du maanaam du dëgg ci ñoom dan ni woon musique bi dañuy jooy relève bi xale bu ndaw ñëw di investir ci musique bi mu léegi li mu fi dépensé ci xaalis ci musique amul maasam bu ko def ay papaam ne li fi def ci jaloore ci musique bi defuñu ko moo ñu fekk ñun ay xale yu ndaw lañ di soog a débuté musique mu def ci ñun def ñu ay noobul jox ñu ay oto ñuy dawal ku ci nekk mu teg ñu ci condition yu leer di ñu fay ñu dara xale bu bëgg a dem nañ ko bàyyi mais lu ne daf nañ ko lu ne def nañ ko ko waal yi missile bu ne sànni nañ ko pour bëgg a tas orchestre bi bu ma nee la répétition jàppante na waal yi ñuy waxante lu ne te lépp rek ndax bëgg a faagaagal bis bii waaye nag yàlla nit ku baax la nit ku bëri sutur la moo war lii lépp mais ñun ay xale lañ rek bu bu ci leneen nag naree am. comme musique bi léegi nekkatul affaire de fo lamb la wala muy leneen kon balaa càmm ñu may. la la Mbese lay ñaanal waaw non non gudd fan moom lay. Oumou Sow tey après Bercy bi lan nga yëg. mbégte fierté dama man Bercy bi dama ko jooy aw ma sax cent franc pour man aw ma sax condition wu yëg ndax ndax bég tey moom bu bu fi yamoon sax mu neex te incha allah du fi yem ndax dañuy jëli Grammy Awards kontaan naa papa ca xoolal maa ne papa coon maa ko jël def ko emprunté fii Wally Seck law ba faw bégee foora xeeba ndéygay ndéygay ndéygay ndéygay ndéygay yéeg nga toj nga fi gis nga Bercy bi réussite total lan nga sentir tey waa sant yàlla rek parce que ñun ay taalibe Serigne Touba lañu bu ñuy ñaan dañuy ñaan ci gannaaw yàlla dañuy ñaan ci suñu wasila Serigne Touba mi nga xam ne mooy suñu yaakaar àddina ak alaxira donc ndam yàlla bu mu yem fii yàlla na continuer ci barke Seydina Mouhamed waaw réussite totale yàlla baax na jaajëf. salaam toj nga ci kaw tey. <laughs> Ah, waxoon nga ko def nga ko waaw. ngeen ko ngeen ko. ndam. ñi nga doon mais du du parce que euh, kewul du euh, il a assuré il a chanté et puis li ma gën a impressionné spectacle bi mu parce que ku wax ay Bercy d'accord ci la mais un spectacle Wally c'est un danseur hors pair. un très bon chanteur avec des chorographies ba artistes c'est le Sénégal qui a gagné toutes nos félicitations

Moussa yee waaw euh, suma waa ji kontaan naa xam boo gisee ñëpp ñëw yëpp benn benn wax la parce que waaye dafa baax salaam wax na ko léegi te ñun ñëpp bu ñëwee rek parce que moom moo ko waral te macha allah yàlla ko yàlla lafal cat man dama koy ñaanal yàlla ko yàlla lafal cat parce que rakk ju baax la doom ju baax la te macha allah def na fii doom de. <laughs>